neex na ma lool gis nga ñi gëmul diini am leneen lu ñu tànn muy seen diini ba ko ñoom manoo leen caa jëlee bu ñu la jëlee ci li nga nekk du fulla du fayda lekkum diinikum waliye diini moom moom maliki yow mi diini ku ne la nga nekk bés dana jot nga añ añam sikk nekku ci dama sama benn jigéen bu baax waay sama wóllëre la muy soxna ndey Aïssatou Cissé soxna Pape Moustapha Cissé la woon bu piir daaw walla matul daaw ci la aja ko euh, koo mbay jii di soxnaam fekke ko semaine bii bii ndeya fekk xam nga ndeya su si ku ko jur paalaay siisi ñu jël ndey astu yebal ko kër maamam kër baayam muy pir dénk ko Serigne Moustapha Sy déglu nag li may wax bu baax bul déglu déglu sénégalais bu ko def déglul déglu jëriñu na ko jigéen ñi dem muy xale mooy caatu soxna umul xayri si borom waañ wi soxna umu sëriñ Babacar Sy ko jur sama xarit la woon su ma ne woon sax day mel ni woon ni ne sama xarit la soxna umu ay doomam xam nañu ko soxna umu soxna umu kël so mbay di kala su ma masaa dem ci tuuram yi waxtaanal leen danaan Iran ñoo bokk ndey sama yaay bi mu seet see soxna umul xayri muy dem mu jox ko benn tusi ma lànk mu ne ma yaa sob sa yaay dana ñëw indi séri ca di dem ci du yóbbu yóbbal jël ne ko nga dima ko xoolee ndax xam naa ne dootuñ gise sama yaay dem soxna mu nelaw mu jël ko ñu umu xayri njaay turandoom ñu koy tooñ ñi umu njaay gaynde ne ko yaa yor attaaya yaay Iran ak gune ay da luum bu luumeen mu ne ko yaa yor añ beeg reer beeg ndékki bu yaayu Iran génne ndee astu mii may wax néegam dëkkal fa sama yaay kon soxna mu sama xarit la musuma def lu ma naqadi musuma koo wax mas nañ ma dëj dafa yónni ci sëriñ bi ma dëj ni ko Iran ndaw du ko ñuy dëj na fa jóge ayca na jiite xale yi ñëw def li ma ko sant caatam loolu la ma daan wax Ira dañoo bokk ndey moo tax may yónni ci yow ak di la téléphoné waaye li mu bëgg a nettali mooy ndóoy na mu demoon sëy yóbbu bakken yóbbu bakken te sëy ba la toog ba faatuñu delloo si ko ci waaw suul ko ca baayam kooku leçon bu rëy la kenn limaluñ ko ñaata jëkkër déedéet Pape Moustapha Cissé rek la laa ko xamal mooy caatu soxlom xale la du mag lool bakken ba mu yóbbu ca sëy ba fale ne ba jur fa doom yi mu fa jur faatoo ca néegam ba ko Pape Moustapha Cissé dugaloo ñu defar ko yenu ko delloo si ko Tiwaawan bakkal la yóbbu ñu indi néew sàng sàng jullee yóbbu ko xal ko suul ko ca maamam alaaji Siise moo nekkoon imaamu jumaayi sëñ Babacar moo doon denc soxna loolu neex na ma jàmbaar piir la nag foofu laa ca mën a yem ndooy jàmbaar piir la te xam naa ci daal ndeyaa Siise ndey astu siise doomu soxna umul xayri bàyyam bu daan jàngal xuraan paalaay siise ñun dañ daan daw julli ji julli ji wuñ ngir yàlla de alxuraan ju neex jee ñu yóbbu bu yeggee ci ayo lésina haado ni mu koy xëccee da ngay dékku ne o oh, ci biir julli gi Cees lay jóge ñu yëpp ko ci oto mu ñëw jiiti jumaay sëñ Babacar delluwaat moo jur Pape Cissé moo ndey ak soo bokk ndey ak baay moo jur sama xarit ma du Cissé faatu na bu yàgg ndey bàyyi lañu bokk mais loolu la jigéen di def suñ la daan muur ngay sëyi dañ naan la demal fexeel ba suul sa jëkkër ba sa jëkkër suul la am déet looluy dëgg moo tax malik yow mi diini yàlla moom diine moo tax mu rëddal jigéen fi mu war a jaar rëddal góor fi mu war a jaar jàmbar piir la xam naa ko piir na day associé moo tax soo bëggee dugg ci tabaski ci jigéen ngay jaar <laughs> lu tax lu tax Haajara moo ko sabab ndax doom ba Ismaayil baay ba ba mu ko nammee reen booba am na lu yàlla nam ma dogal te waxagu ko Ibrahima waaye ci reen doomam la koy xamee yàlla su bëggee def mbir day def mbir am déet sunu su bëggee def mbir day def mbir mu ne Ibrahim man nga gëm mu ne ko waaw man nga sopp mu ne ko waaw man nga def yàlla mu ne ko waaw mu ne ko man nga yaakaar mu ne ko waaw mu ne ko maay mu ne ko inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sama julli samay jaamu yàlla sama dund sama dee lépp yaa ko moom mu ne kon bu dee dëgg la rendil sa doom bi moom rek nga gisagum ci doom muy <coughs> Ismaayil rendi ko soo ko rendee nag ci lay xam ne yow xarit nga Ibrahim def ñaari affaire gis nga Assane sama turandoo jiitalal yàlla ci xolam dana tax doo jaaxle dana taxit du jaaxle bay war a xaru ku am sa doom jiitalal ci sa dënnu doom boromam awalu maa yi jibu alal mukallafi maarifatullahi yaqinan faarifi sa doom sama turandoo muy Ibrahima li war a njëkk a jiitu ci xolam mooy yàlla mi ko bind jeex na dama am benn xaleel boo jàngee annaam muslim yéen ñi may seetaan école yi bu njëkk daan nañ ko jàng léegi lañ ko bàyyi mais leçon yu garaaw a ca ne xale bi dafa toog ak papaam toog ak yaayam toog ak sëriñam xanaa ñetti ala ngoog ñu ne hayya ala salaati fekk ñoom ñett ku soxla ko pour yónni ko sëriñ bi ko jàngal yaayam bi ko ëmb baay bi ko uutal yaay mu ne ah non uhibbu laa taala li annahu xalaqanii wa xalaqa ummi wa abi wa jamii annaas damay julli ji sëriñee yàllaa la bind yaay ee la bind baay ee la bind man mii yàlla bind maa ngi dem wuy ki ñu bind suma paree doog ñëw ci yéen mu anaa muslim téere la di bu njëkk daan nañ ko jàng moo durusul awal téere yu am solo lanu yu am solo lanu waaw seetal loolu yaay wax ngeen ne ko maa ngi dem ci këla bind sa wax ngeen ne ko maa ngi dem ci këla bind sa sëriñ wax nga ne ko maa ngi dem ci këla bind su ma paree ci ki bind doog a ñëw ci ñi ñu bind dégg nga wolof su ma paree ci ki bind doog a ñëw ci ñi ñu bind ne warañ dem jaamu ji yàlla yow nga topp ndey topp bàyyi topp sëriñ ba taloo yàlla foo ko teg mais tegoo ko fenn li Assane wax ci sa bakkan rek seetal loolu maliki yow mi diini loolu indi iyaaka naabudu na tuma jaamu ku dul yow iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su dee ndimbalit kenn yoru ko yaa ko yor ndax ku ne la ma yor yaa ko ca dimbale kon ñëw naa nga dimbali ma c'est très important moo tax aj soo ko tuddee te tuddoo Haajara danga añaan anaa ko benn booy mu jaaroon naa ci Iran ma ne ko bàyyil wax boobu maa la jongal maa la jàngal te jongal naa sa moroom yu bari jàngal na ma ne ko bul waxati loolu bul ne jaar nga ci man ne kii ma jongal jàngal mu ne dama ko waxee noonu ma ne ko dafa leerul leerul dama mas laaj Serigne Abdul Aziz Al dégg ci benn waay buy woy wax ni fa ilayka nangama ko sabab hal min sabilin bu sëñ Babacar nangama ko sabab ci doyuma man du lu ma jàng ci téere doyloo ko déedéet dama koy gëstuwaat ba xam parce que damay jël yax bi jël sarxa bi jël sama xalaat damay jàng yax bi jàng commentaire bi jël sama xalaat nag boo ko deful doo dem parce que ma laaj ko nag Serigne Abdou mu ni ma bu dee fa illayka de lëf la moom Serigne Cheikh bi mu nekkee prison ci la ko Cheikhouna Tidiane Chérif feeñu moo tax mu woy ko téere bi hal min sabilin nag loo ci dégg du dëgg lu dul woy sa Serigne day dolli barke moo tax Serigne kër woy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ma ko xanaa déggoo xisa boobu ma ne ko nangul maa la jàngal sa baay jàngalu la maa la jongal sa baay jongalu la te juruma la te bari nga ciy morom gis nga bëri na ñoo xam ne ndooy añaana tax mënuñoo avancé ñàkk nangu day xañi cër nangu day joxe cër man lu ma xam ci fiq lu ma ci xam Serigne Moussa Diop mooy ilimaani jumaa yi Serigne Babacar Sy lu ma xam ci fiq moo ma ko jàngal xaw ma dara xam-xam-xamu sëñ Moussa rek laa leen di jox ngeen ci jàngat di ko jëfandikoo mais lu ma wàññi il faut nit nangu mais Haajara moo sa kuy waxtaanee màkk tuddoo ko da ngay wor bi Ibrahim xëy yeew te gis nañu wax ko ne ko rendil sa taaw bii lay doxal yonent nga dese wëndëng wëyëng doo toog yor dara dafa dem ci yaay ja Haajara wax ko ko mu ne ko waxuñ la nga boole ma ci mu ne ko déedéet sa doom rek la mu ne ko de laajal bu ma ci waree bokk boole ma ci xanaa xamoo ne ganaari ki nenam boroom ganaara moom ñëw ci la nettali ko mu ne ko papa wax gi ma ko wax tooñ nga ma bu tiit mu ne ko papa yaa ma jur rendi ma loo ma ciy wax ifaal ma tuumar defal li la yàlla sant ci man rendil ñu dem résibati ñoom ida rujjat al ardu rajja wa buttat al jibaalu batta ndooy defal li la yàlla sant ci man mooy rendi ma asan doom yi nga am boo géntoon loolu wax ko seen ndey luñ lay tudd waaye neel dof nga naan ci ne leen seen bàyyi daa dof de moytu leen ko ah koy dem ba adopté doomi jàmbur loolu ak di greffé doomu jàmbur greffé boole ñaari mën nii yu baa nga dem bitim réew Amérique jigéen ëmbal la ñu jël sa mën niyu ak sa mën niyu jëkka def ci ndaw si mu ëmbal la ko nga fay ko daganul daganul xaaral ba yàlla may la ko moo gën a rafet nga am ko ci am boo xam ne doo ko xalaat bépp amin booy xalaat baaxul baaxul mu ñëw ne ko dama gis biig yàlla wax ne naa la rendi ma di la laaj luy sa xalaat mu ni ko kooku amul xalaat exécuter rek ndigal moom applike rek jëfe rek ifaal ma tumar sa tajiduni insha allahu min asaabirin lu ko xamal insha lu ko xamal asabru bàyyi ma jiitu ci moom bàyyi ma jiitu ci moom ba jàngal ko yàlla mu dem ba xam ne léppam yàllaa ko moom moo tax lu ko lu yàlla sant bàyyi mu d'accord ci am déet nuy mais loolu la bàyyi duma doxi tey digoon naa samay xarit dem fa duma fa dem duma naani ataaya duma rëbbi dew ma maa ngi lay xaar boo paree rek kaay rendi ma bàyyi bi di ko yóbbu na fa mu ko war a reyee ñetti taxawaay lañ tuddee jamratul uulaa mooy taxawaay bu jëkk jamratul wusta mooy taxawaay ba ca digg ba ca topp jamratul ba mooy taxawaay bu mujj yàlla nga yàlla na ngeen dem màkk man moom dem naa ba pare dem naa ba pare mooy taxawaay bu mujj bi mu jëlee Ismaayil moom Ibrahim war ko yóbbu rendi ji ko ci la seytaane ñëw yàqkat bi jaar ci haajara ne ko xam nga fu ana ibrahim mu ne ko génne na mu ne ko comme àndal mu ne ko doomam ismail mu ne ko xam nga fuñ jëm mu ne ko déedéet mu ne ko yow amoo ful na danga ko ko waroon a laaj <clears throat> baa xam nga ne sa doom lay rend ji mu ne ko ndokk ba may jur doom sama bopp taxul ni ma sëy sëy ci baayam di ko defal lam bëgg doom ya ma ca jurit noonu la mel lum mu ca bëgg na ko def jigéen di am jëkkër jigéen di am jëkkër ay yónnee la oto nga ñëw may yónnee la oto nga dellu pour lan jabaru jàmbur lu muy seeti jëkkëru jàmbur jëkkëru jàmbur lu muy woo jabaru jàmbur foo ko teg c'est fini da koo gëmul ça c'est fini mënoo koo masqué nee naa la bu ma feebaree ku ma seet ma xew la ñëwoo banaa la du maa la ko wax mu dabi Ibrahim Ismaïl moo ne ci gannaaw baayam mu kobos ko ne ko kaay xam nga fu la sa baay jëmi mu ne ko jéemuma koo xam fa mu jëm rek man falaa jëm xoolal kii amul kilifa jéemu koo xam fa mu jëm laa jëm jigéen du góor du tànnal boppam euh, euh, jabar jigéen du tànnal boppam jëkkër képp ku sa kilifa tànnal jabar lu mu doy waa soo ko téyee rek sang ci juddu ku sa kilifa tànnal jëkkër lu mu doy waar boo ko téyee rek sang dina ci jóge mu ne ko sa papa dalaa nara rendi mu ne ko neex na ma de loolu de neex na ma lu neex na ko mu ne ko mu ne ko neex na ma mu ne ko xanaa dangaa dof xamoo dee mu for xeer ne ku ko xër sànni ko ko wan ko ne faaliwum la jamono jii ku bawul say xarit doo ànd ak sa waay sëy du am supporter sëy sa jëkkër yow sa bu problème amee réglé leen ko su mënul regle na ca bàyyi wax ngeen continue waaye sëy boo xam ne ndaw siy déglu xaritam góor gi déglu xaritam say bokk participer am na koo xam ne amul jëkkër daa bëgg nga ñàkk jëkkër ni moom Serigne Babacar Sy nee na borom càq day moytu borom baatu neen ku am jëkkër day moytu ku amul jëkkër lam lay digal mooy sa sëy tas ngeen yem mu sànn Iblis daw mu sànni ko xeer waaye découragé mu daw toppaat Ismaïl waxaat mu daqaat ku sànni ko xeer mu taxaw daal découragé wul mu toppaat ko mu mu sànni ko xeer benn xeer bu mujj ba di taxaw bu mujj moo dal ci bëtam bët ba tuuru moo tax patt la Ismaïla ko def patt mooy benn bi bi mu koy dàq nag ñetti taxawaay benn bu jëkk bi mooy jamra bu jëkk bi soo demee juróom-ñaari xeer nga koy sànni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 xeer boo sànni waxal allahu akbar soo paree nga ñaan li nga bëgg yépp olof ak joola ak bambara loo def baax soo paree nga dem ca ñetteel ba booba lañ fuqee bëtam fa la gaje ñëwee sànnil juróom-ñaari xeer mais bu fa taxaw continuel jigéen a ko moom ak xale ak makk alalu xale la alalu jigéen la ak alalu mag muy sama turandoo moo tax il faut ñu mageel ko safa marwa jigéen a ko dox bi Ismaïl mare di wéq tànkam te gis nga fañ ñu yóbbu woon Haajara àll ay xeera fa ne kaaba kaaba ga ne fa kenn dëkku fa lam amoon ci ndox ak lekk jeex te doomam kenn tuddugu ko ba léegi ndax dañ ko xatal ñu génne ko indi ko màkk ndax maam saarata nag la jigéen dafay dafay fiir te et pourtant saarata ko may Ibrahim saarata buur misra ko ko may mu ne Ibrahima gannaaw juruñu doom jël ko xale la mu di la toppatoo ñu sëq rek yàlla dogal ca doom liir ba naqari ko aloo ah, ci man mu xatal ko di ko xatal ba mu génn man nag su ma nammee lëf amul loo ma mën a def ba ma bàyyi ko déedéet yóbbu ko màkk dëkkal ko fa defal ko mbaar mu rafet di tàggoo di dem mu ne ko waa Ibrahima koo ma fiy bàyyil mu ne ko yàlla mi la bind bind ma bind liir mu ne ko turandoo bi nag mu ne ko bu bis bi del see rek nekk yii yàlla na mën a lëf xam nga koy tudd xale bi yaayam léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen du ma tuddal waxoo dëgg yow yaay kan boo fi nekkul sa doom sa jabar am na doom bu ko neexee tudd ko dara nekku ci seen aada yooyu ngeen di bàyyi ay aadala rek Assane nekku fi soxna si am na doom mais bés bi si na jigéen mën naa rendi mën naa tudd gëm ko jigéen mën na rendi mën na tudd ci kaw ba mu ko jàngee bi xale bi ñàkkee ndox mu daw yéeg ci benn montagne bu ñuy wax Safa di xool ndax dina seen ndox ndax doom jaa ngi jooy rekk mu ne ko isma yaa iilu bi bukkaay ibni ay yow yàlla sarax ma dimbali ma ci sama jooyu doom ji ndox rek la bëgg ñu far ko tuddee ismailu yaay ma ko tudd ibrahima sañu caa teg beneen tur da koo sañ isma yaa iilu muy ismailu olof ne ismaila ay olof ismaila tey olof ismaila ismailu ba mu yéegee ca montagne bee doon xool dana séen ndox taawala déet asan séenul ndox mu daw dem ca marwa xam dana seen ndox walla déet gisul ndox mu dellu ca safa jaabante ko juróom ñaari yoon moo tax boo ajee nga dox safaa juróom-ñaari yoon jigéen a ko moom aj mbiru jigéen a xale la ak mag mag mooy man sama turandoo xale mooy Ismaïl jigéen mooy yaayam Hajar asam ca juróom-ñaareelu yoon ba la dégg lu ne ko dellul fa nga jógee ndox am na mu seen picc yee di biiw ndax ñoom mar nanu ndox lañ doon wër ñu wër xale bi xale bi tëdd ñuy naan bi Haajara ñëwee gis ndox mi ba ball di dem mu xam ne day daaneel néegam mook doomam mën nañ ci lab mu gaaw di ko def nii naan ko zëm zëm zëm mooy bul jógi fii mukk booy buusi fii boo fi jógee rekk mën ngaa doon géej labal ñu wala dex moo tax ku nangul sa jëkkër lépp nangul la ku nangul sa jëkkër doom joo am lépp nangul ko waaye am cër dëkk ci saaga seetaat ko maa la ko wax soxna soosu di haajara moo ko tuddee zëm-zëm